yéen ñi doon rêvé ay salon sur mesure Finesse andil na leen ko ay salon sur mesure yu mucc ayib waaye tissu bu muy employé nekk ot gamme tissu boo am solo boo xamante ni boo ci toogee da ngay daal di dégg jàmm xaar leen ma teg sama tàngal sama tàng macha allah xoolal leen ma salon bi ni mu yànje xoolal bii rouge matière tissu bi nag ot gamme la tissu bu mucc ayib boo xam ne doo dox ba gis ko fenn fii rek nga koy gis ci finesse xoolal yii salon xoolal bii ñegenaay rek xoolal tissu bi ni mu nooyee boo ci toogee sax da ngay daal dee dégg jàmm gis ngeen rouge bi dafa agencé maanaam couleur moquette bi ak couleur rideau yi lépp dafay ànd donc yow mi nga xamante ni da nga tabax ba nopp bëgg mu décorer la sa salon da ngay daal de rek woo finesse mu agencé la ay couleur yu mucc ayib bleu bu am solo bu rafet bula de nuit même matière tissu bi qualité quantité hygiène macha allah dégg jàmm am nañ fi gris bu mucc ay ku ne xam na ni gris dafa day ànd ak argenté macha allah fi ne leen ko kon boog yéen ñi nga xamante ni yéenay waajal seen ay gàmm seen ay màggal bëgg a décorer seen i salon bëgg espace bu yaatu ci toogaay nit ñëpp toog. waaw loolu finesse rek ko mën ndax day ñëw mesurer bërëb bi rek daal di lay defal kanape ba mu wër rafet ànd ak ay ñegenaay ci ay couleurs yu mucc ayib amul fenn fii la am fii ci finesse. yéen sénégalais yi yéen a ko tax a jóg ndax nee na loo yor ci sa poos boo ñëwee di nga am canapé bu mucc ayib di nga am salon bu rafet dina am sa tête à maanaam table joo xamante ni da nga teg sa petit déjeuner yaag sa alaaji ngeen jàkkaarloo face to face ngeen def ba mu baax. finesse nee na ngeen ñëw fii ci Yoff route de l'aéroport di yéen sénégalais yi finesse leen di woo ngeen ñëw fekk si ko ci gaam ci qualité ci quantité waaye ci ay salon sur mesure loolu ah sama gént la réaliser moom finesse jaay dolli ma fu mu jëm ak ñun indi na muusu tàkk ni de jóg leen jóg leen jóg leen ay caay caay caay caay caay dikkati nañoo dikkati ñoo ngi nii. dolli ma mi ci potu caakiri bi. dafa wóoba nee muy mosali ak ma dolli ma caakiri. dafa wóoba ma dolli ma caakiri. dafa ma dolli ma caakiri. dolli ma fu mu ak ñun. andi na potu caakiri de. jóg leen ay ca ay ca ay ca. Dolima Cakri 500 francs rek Dolima Cakri dafa overneex Dolima Cakri dafa overneex Dolima Dolima Cakri dafa overneex mm, mm, dafa overneex mm, dafa seeni mbokk ak seeni xarit dañoo am habitude lool di leen yónnee xaalis application TapTap Send mooy solution bi yéen ñi nekkee ci Europe bi moo xam France Italie Espagne Belgique Allemagne ba pays ba frais d'envoi yi 2 euros dongul seeni ay mbokk mën koy jot fii ci Sénégal ci seen compte Orange Money wala seen compte Wizall ak sa code promo NDS 221 TapTap Send daf lay may 10 euros te li ci gën a neex mooy yéen ñi nekkee États-Unis Canada ba ci Royaume-Uni TapTap Send daf leen beral loxo lépp lu ngeen mën a yónnee du ngeen ci fay dara zéro frais d'envoi zéro frais de retrait Tap Tap Seen mii nag moo wóor m'appelle Lia et je suis la maman d'une famille de grands gourmands. À l'heure du marché, ils m'ont surpris avec une ambiance incroyable. Et c'est pourquoi j'ai fait un tour chez Mertiaba qui m'a confié 40 ans de savoir-faire culinaire qui se résume à la gamme Kadi. Dès que j'ai émietté mon bouillon Kadi dans la marmite, comme Mertiaba me l'a dit, les Ndoyen ont tout de suite apprécié. Quelle bonne odeur et quel goût qui font la joie de toute ma famille. Gamkadi, bonjour l'appétit ba may naan di bég may neexal jotaay di lii yomb te maa neex a seddale may li sedd lool te neex ma ànd ak cafkaat te mën a bégle bëgg ngeen ko bëgg naa ko de saveur boisson yi gën wax wax amin amin ñaanal naa la dégg nga. waaw te ma yow ñaan naa ñaan koo xamante ni ah nee naa sama yaay yaa na dem France. amin kontaan naa ci yow dafa nga loo xam kër mus kaa def. Mhm. Mhm. Ah, man mhm. sama moroom Aliou yéen ne ci mbedd. loo xam ne xaw ma nañu léegi si mbedd ñuy taxawal kaay di leen tooñ ñu ay xel ñu leen di dóol man nag yow yaa ma te yow am na yaay am na papa mm-hmm. am ay mbokk ñu ñu bàyyi nañ ci mbedd mm-hmm. yow nga téye ma mm-hmm. yow da ngaa baax waxal waaw waaw tax ma ñaanal la jërëjëf kontaan naa ci yow maa gën a kontaan si yow waaye ñaan ko danga koy sante suñu borom ndax yàlla mooy kin fa yekkul lu baax ci doomu aadama moom mi ko sàq moo ko ciy def waaye man nag leen rekk ma jaaxal ci yow gannaaw yàlla may na la lii nga am yépp yow lan nga defal sa yàlla loo ko jaamoo man mm. tus tus tus loolu baax na ah yow yàlla def def la ni nga mel nga waññeeku say morom am la ñu am te yow amoo ko ñu ngi la tëyee wutal la soxna loolu yëpp kàttanu sunu borom ak mbaaxam la kon yow da ko war a delloo njukkal waaw jaam ko yàlla ko ba mu ba mu bëgg waaw dinaa xam hmm. naa la ma ko defal waaw lan baa ma yeete xëdd xam ah, nga gars suñ suñ xëddul dañuy dañuy xëy naan duñu woon. waaw bàyyi ma yeete xëy nga xam ak xool moom ñëppay woon. loolu jox naa la ko. Ah? may naa la ko waaw waaw loolu moom mënaan léegi kon nag na nga fexe ba kenn bu mu karmat ci kër gi. waaw karmat daal bu kenn def ci kër gi. na ngay fëgg ñëpp heure xëdd ñuy xëdd. te bu ndogu jotee ngay xool ba xam ndax teg nañu bagage yeeg yëpp normal. maa ba yow jox la am nga sax soxna waaye na ngay xool rek. ndax yéen yow yow fay jox la wala moom man. yaa Seyda. sang bi. wuu boo xam loolu ay sang bi voilà ah, nag loolu loolu dafa na gën a dëgër. ah man yaay sama sang bu ma la waxee sang dama la kaa wax. waaw man yaay sama sang yow xam nga la. waaw waaw wax nga la eh, waaw waaw na ba taa neexaale na. Ah. Ah, fekk naa nga julli de ah. damay loo baax na dégg nga. man xam nga maa ngi julli. yaa ngi fekk may julli. mais man bi ma dikkee ci kër gi ba léegi mosuma laa gis nga yor sa tala maa nga yor kurus maa nga yor sa jaada ne da ngay julli. maanaam mosoo koo gis. waaw bu ne amul nag la mosoo koo gis. non ko. waaw talee ba boo bu dee bu man manuma manuma julli ak ay nuy jullee bokkul. ah waa sang bi nuy jullee. suba ay ngoon ay guddi yooyu man noo xam man damay bàyyi ba guddi jot ma dajale yëpp. legle ko am jekk à la nekk tekk ci benn mbuus ba mu jekk rek olaat mu ko yàlla rek na ko jëlo noonu man man loolu fekk na ma koo legle bu yàgg. da ngaa gis kuy jullee noonu. ma man la naa xool ma nag yow waaye bu ma ci loole naa ko naa ko ñëw mm. na ko yow li nga baax na. sama bopp rek dem na jóge yoonam rek dafa li ngay def ne ma loolu si jig jigu lañ. dafa la nga def bu bu ko bu ko saa delloo. waaw man dama changé sama julli. wala woon julli. tisbaar laa doon julli. tisbaar. waaw kon bu jot na. ah non non. parce que su ma. eh waaw man. eh yaa ko sama yàlla lii lii lan la. ñaan ko. ah wóyul ko. jabaxala. doole. ci biir kii ala kolot kolot kolot. kolot atala. kolot ko. waaw waaw tey tey tey. doole doole doole doole. ah moom du ma ko doon doole ma ko doon ah. ah bàyyi ma ko sax ma. eh wóyul kon kii moo ñu yee. yow lan la. yow da nga ñoo yëpp wala lan. xam nga man heure ah yow. tey léegi nga ah. wax looy yee. ala deux deux deux heures et demie jot deux heures et demie. looy yeete. waaye ba nga kamet heure bi nga yeet xëdd. waa noonu naa ngi. tey alaaji rey la. xanaa xamoon na alaaji mbër la woon. alaaji wéyee la ko. kamet mbal cabaxal ko. ma wax kolat ko. ma nga ma lay rey nga naa ma mbër eh, la woon dañ lay dóor de. bu laay kii gën ka dof tóoral. day dof dof lu maa gën a dof foofu ba eh, ah, dëgg la sa bopp lay ñuus de. très bien eh, eh, du laa wax. non yow dofoo da ngaa réew. très bien deux heures julli tisbaar di dallu. ñëw suñu kër gi ngay yuuxu naan da ngay yett xëdd. gat waay yow. way saaga. eh du la saaga. fëccee fayul. kenn ñëw ta fay kuy. yow yow mën naa bàyyi xasaar. merde laa wax. yéen a ah, gën a dof. dama yee sa yaay. yow yow sa yaay yow yee sa yaay yow ma jàpp ci ma saagale boobu ba tey waxuma ci nga continuer mënu dóor yow man ngay jéem a song. yow la wala kii eh, dama lay yuus de. dama lay dama lay gënal jamu de dama lay jam de. allo allo. ala joxe ma waay. song ko ala. ay couvrir ma. mooy sëñ. Ah, ah, kii laa la ko bàyyi yokk yow ko lagal ma xam nga alaaji alaaji kii xam nga ne napp na la. yëngu da ngaa am da ngaa ragal am fit yàqu nga yaxee. ragal naa ma doon def gëw ma ko de. doon jëggal sama bopp noonu bu jàllee jàll na bu jàllul ma xam ni daanu naa ci pax. fan la mën a jaar bari. laa ilaaha illallah yàqu nga nag. ci kër kii fu mu tourné ci kër yow yàqu nga. napp man dama doon làmb rek faw mu nooy. xoolal boo ci dellootee xam. xaru.